يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf alxalqi sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin ayyuha alixwatu almuminun uusikum wa nafsi bi taqwallahi taala mbokki sant yàlla di ko dimbalee cheikhuna cheikh ahmadul xadim mi nga xam ne moo waxoon ne képp koo xam ne Euh, mbégteem mbégteem nga na ko dimbali ci sant yàlla euh, digge it lu baree baree bari ñu xam ne it bis bii la la sëñ bi génnoon ci këram googu ci Mbàkke Baari jëm ci tukkeem bu màgg boo bii doon xéewal gu màgg màgg boo xam ne ci kaw ay nattu la woon waaye lépp dox jëm ci yàlla la woon waaye suñ borom subhanahu wa taala mooy jëflanteek ay awliyaa am ak yonentam ak yi nitam di leen nattu ngir mën ne di jox ay daraja yu kawe ndax sëñ Musaa Ka nee na nattub jullit day yokki maqaama mbaam mi sippi ñaawteef bisub qiyaama suñ boroom bu la bëggee jox ay xéewal da nattu sëñ bi loolu la xam moo tax xéewal gu réy gi mu am lépp mu ko jële woon ci tukkeem bi ñu xam ne ne tukki bi lu taroon la yoo xam ne daanaka kenn mënu koo nettali ndax taraay bi waaye moom mës ñàkk sagoom ndax ba muy dem nee na yi dañoo jàpp ab prisonnier lañ jàpp waaye moom day dox ànd ak suñu borom subhanahu wa taala ak nit ñu baax ñi asiru mahal abrari hiina asiru wa zanna laida anni hunaka asiru bi muy damit xam ngeen ne <clears throat> jamono ju metti la woon lu mel ni tey jii xam naa léegi neex na waaye lu tiis la woon benn bayit rek mën naa wane loolu xusuuri xalat wal ahlu anni tafarraqat li ma bi madhi allazi anhu lmadiu qasiru nee nag sama kër yi wéet na sama njaboot gi tasaaroo na te li ma ko teg lépp mooy bëgg a doon jaamu bi yàlla bu liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na itam ne dañ koo tooñ koo xam ne nii mësta rey luy dund tooñut kenn ñu mën koo jële fii fu nañu jaare la ko fa téye ko juróom-ñaari at yoo xam ne defu leen dara ba delloosiwaat ko génnewaat ko lu ne ñu teg ko ko ba mu wàccub liggéey xam ngeen loolu metti la waaye moom loolu lépp nee na jéggal naa leen ndax suñ borom subhanahu wa taala ñu xam ne nag sëriñ bi li ko fi indi woon mooy beesal diine ci xooli nit ñi liñ ci dolli te bokku ci mu indiwaat ko liñ ci liñ ci génnewul mu delloo siwaat ko moo ne woon diinun siwa islaamuhu laa yuhmadu inda al ilahi wa bihi nu jaddidu nee na diine rek ci diine judut ji di yàlla diine yàlla suñ borom du ko nangu ndax loolu ab aaya la wa man yabtagi gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min alxaasirin buñ dee nag ci bisu màggal di sant ak di bernde di ko def ni nga ko sëñ bi sante war nañoo jàngataat itam maanaam dunduk sëriñ bi nga xam ne daa fees dell ak i taxawaay fees dell ak yoo xam ne ni kenn mënu ko lim ak i sacrifice lépp nag mu defoon ko ngir liggéey lislaam ak julli ji mu wax ne wa agrina bi ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma suñ boroom yàlla nag ma may may liggéeyal jullit ñépp kon wares naa jànge ci sëriñ bi euh, taxawaayam itam ci kanamu ñoo yi nga xam ne mooy noon yi itteem ju kawe an ci ñooñu nga xam ne ñoo ko fi jële woon yóbbu ko ci réew mi mu taxaw seen kanam biñ koy génne yàlla boobu biñ ko génnee nee na yéen ñi nga xam ne da ngeen a wax ne yàlla ñett la yéen a ma génne waaye génn ngeen ma bi ngeen may génn nee na kii daal jaamu bi yàlla la nangu te doon jaamu mbindéef te damay jihaad loolu lañ ko tuumaal waaye li ngeen wax nee na dëgg la bu ngeen nee damay jaamu damay jihaad di dëgg la waaye nag inni lu wajhillaahi jalla ujaahidu nee na jëmmi yàllaa tax may jihaad waaye li may jihaade mooy ci xam-xam ak ragal yàlla kon sëñ bi jihaade wut ci ay ngànnaay ak i gobar ak boole aw nit di xeex donte loolu jihaad la waaye moom xeetu jihaad bi mu tànn mooy moom fas yéene doon jaamu bi yàlla rek buy liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yar aw nitam ci xam-xam yar leen ci ragal yàlla neen loolu laay jihaade te yaakaar naa jihaad jooju tey moo mën a tax ñu taxaw fii tey Tuubaa gépp ak di di ko màggal ndax bu jihaade woon eh, maanaam ànd ak ay gobar tey jii daanaka ñooñee mu ànd loon faatu nañ te boo taxee raaf nañ bu yàgg yàgg yàgg te xeexut xuloowut waaye da doon jihaad ci ragal yàlla liñ mën a jàngate ci moom itam mooy moom de biñ ko jëlee ba yóbbuwaat ko ba indiwaat ko lam wax mooy jéggal naa samay noon ñépp afawtu an il aadaai turran li wajhi man nafaahum li gayri sarmadan lastu adfaw jéggal naa sama noon yépp ndax lan ndax yàlla mi dox sama diggante ak ñoom ba mënalu ma dara moo tax man jéggal naa leen kon loolu tax war nañ koo jàng ci moom di jéggile di jéllale di baale nee na moom dañ ko tooñee daal muñ ñu fayul ñu fay ko fayul ko dañ koo fay fayul ko suñu borom fay na ko ndax ku gis àdduna rek xam ne fay nañ ko te alaaxira ñëwagul waaye itam suñu borom fayul na ko ndax ña ko doon yóbbu tey jii mënatoo ci gis kenn wala ay seeni njaboot kon sëñ bi te sëñ baa ngi nii di dem ilaa yawmil xiyaam fu ñu toll di ko tudd di ko yëkkati kon loolu suñu borom fay na ko bu baax a baax ci àdduna rek te lii maanaam suñu borom moo waxoon ne ala inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yahzanuun allazina amanu wa kaanu yattaquun lahumul bushra fi lxayaati dunia kon lii ci àdduna mbégte rek la waaye fay gaa nga mbokk yi war nañoo delloo njukkal sëriñ bi nag war nañ ko njukkal ndax gi ñëpp a ngi dundee yoon wi waaye war nañ koo delloo njukkal bu baax a baax a baax wooteem bii nga xam ne moo ko taxoon a jóg ñu jéem koo xam nag xam bu baax a baax a baax waaye jéem caa tënku ku la ca gën a tënku moo la gën a doon murit ba ci jëkk mooy xam li nga war a xam xam sa boroom mi la fi indi te ak li tax mu indi la fi ak di ko sellal ndax loolu mooy xam-xam xam-xam noo ko mën a xamee baax na noonu gëstuwaat diine ji jéem a gëstuwaat sëriñ bi te di ko gëstoo fi ñu ko war a gëstoo waaye ku ne di naan nii laa gisee sëriñ bi rek loolu yaakaar naa te gëstuwoo ko fa nga ko war a gëstoo loolu tam du aw yoon sëñ bi wax na nee na wax naa ngeen dégg jëf naa ngeen gis bind naa bàyyi kon bindam mii nañ ko jàngaat nañ ko xoolaat ba xam li ko taxoon a jóg moo gën kenn ku ne di wax ku ne naan sëñ bi nii sëñ bi nii di ko firee ni nga ko gisee loolu yaakaar naa ne buñ ko dee seet ba seet ko xam ne ay bakkan ak yeneen da caa aju beneen ba itam bokk na ci ponk yi mu fi bàyyi mooy boo boo xamee ngay jëfe li nga xam def ndigal bàyyi tare moo ci ëpp solo mooy xam ne suñ borom bi ñuy wàcc ci suuf jaamu yàllaa tax sëñ bi am na ku ma a laaj foo nekkoon mu ne maa ngi woon dëkk sàngam mu ne ko ku ma ci laajati dee ma wax ne maa ngi ci waajib ak manduub te su ma sonnee noppaloo ci mu baax kon nit ki jaamu dundam gépp da ko war a jaamu yàlla soo jógee ci jaamu yàlla gi dem ci geneen dem ci geneen noonu la ñuy jaamu yàlla beneen bi itam ay teggin li ñu tudde ak taalibe mooy sa digganteeg sa borom nga rafetal ko sa digganteek nit ñi nga rafetal ko la am ay teggin ak mboolem looy defit nga boole ci ay teggin loolu mooy ak taalibe say wax itam ngay waddu ko te yar kenn ku ci ne xam ne ab yar lañ leen xamee woon yaru ab murit boo gisee ca wax ja ca melokaan wa xol bu nooy cër yu nooy ay wax yu nooy loolu lañ xamee woon murit dañ ci nettali benn xis rek boo xam ne nii koo xam ne daa daa sàccoon ñu dóor ko mu yuuxu ñu koy sëñ bi di laaj kooku lu muy yuuxu am mag moo xam ne moo ko tontu tontu loo xam ne nii mënees na ca jànge lu baree bare da ko ne kooku de mbàkke daa doon ku xeeb wërsëgam ba tax ko mu dem ci wërsëgu jàmbur sàkk ca te amu ci ndigal mu mel ni waaja ko moom alal ja da ko da ko faa fekk mel ni waaja day yokk ay jéegoom ñu ànd di yokk seeni jéego mbooloo ma xale yi nekkoon ci pénc ma di leen yokkale seeni jéego mel ni ban seen njoroon lañ koy tegoo mu yëkkati kàddoom ba ñëpp dégg ko xooleen wax ju teggiinee noonu kon nañuy natt suñu ci ci ay teggiin jaar ca digg ba ñëpp a ko man waaye ab yar dong la lañ rawee jaar ca digg ba ndax lu ñaaw dong la tudd rek la waaye nag di waddu kàddu yi da cee baax ndax loolu mooy moo doon taalibi yi beneen ba itam nañ fàggu lew nañuy fàggu lu lew ndax boo fàggu lu lew doo mën a sàmm sa diine doo mën a sàmm sa ngor te buñ dee liggéey lislaam moom doo ci bokk te it fàggulu lew ngir dunde lu lew rek noonu sëñ gis ngeen talabul xalaal sax la koy tudde ak di liggéeyal jullit ñi loo man di ko def ngir yàlla doo ci sàkku dara di sàkku tuyaaba euh, sëriñ bi itam ku doon woote la ngir ñëpp maanaam li mu wax ci nee na nee na ñëpp ci yoonu yàlla la ñu woote moo xam ñi bokk Cheikh Abdul Qadir Jilaani ñi ànd ci Cheikh Ahmad Tidiane ak ñeneen ñi sax ñi nga xam ne ay bu lañ ñëpp la sëñ bi nanguwul nee na bu ci xeeb kenn bul weddi kenn kon loolu ab murit du xeeb kenn du weddi kenn dana dana dana nag ànd ak sëriñ bi te bàyyi ko boppam waaye nag du xeeb kenn du saaga kenn du du génn kenn kon loolu tam ci njàngaleem sëriñ bi la bokk wax na ne sax lu gën a kawe loolu koo fekk gémmiñam di génne laa ilaha illallah bu ko noonu xam ne kii woote na ngir ñu doon benn bañ na ko ba abdullahi wa xadimu rasulihi xadimu rasul képp koo xam ne ànd nga ci yoon bi xam nga ne kooku deful am noonu kon nañu yàlla yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp yëggal nañ suñu bàkkaar euh, fekk nañu ko at yu bare bare te yàggal fi cheikh mouhamadul muntaka mu yàgg fi te ànd ak wér ak mboolem jullit ñi rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina azaba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 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون